mënoo rëy <laughs> euh, ñu gis ni euh, jamono yi prisonniers yi nga xamante ni ñoo nekk ci euh, ci jal bi ñi ngi def grève de la faim mu doonoon loo xamante ni dafa mel ni wax nga ko yàgg nga ko wax te ñu gis mu am lan moo waral loolu 10 000 waaw avant may ñëw si jël bi sax foofu damay ñëw si sama benn copain bu nekk jël bi échange bi mhm. mooy Dof Ndeye mhm. mu ngi 100 mètres chambre 41 la nekk mhm. nga mi ngi foofu manqué nuyu du nuyu waa jël bi yëpp waaw di wax rek moom euh, euh, wata xam naa ne ñu bari ñu ngi naan Dof Ndeye problème Dof Ndeye problème c'est simple nijaayam moo ko jellu si kaso bi affaire famille la néegu yaayam la bëggoon toj yokkaat néeg bi nijaay ji xëpp si kan ñu nu jàppante nijaay gi nekk moo dem police may ñaan les police police si boppam ngeen bàyyi nit ko jóge feneen rek ñëw wax waxam rek ngeen appliqué loolu il faut ngeen ni càmbar nit li mu wax ba pare mm-hmm. parce que lii xoolal yi ñoo bare wa tey 100 mètres ñu ngi nii instant yi bàyyi dañu grève mhm. ñu ngi gref de la faim bu métti mhm. mais lu ko waral néegi yi ñoo xat ba pare ña fa nekk dan bëgg ñu àtte seen ay dossier mhm. xam nga réew mi li tax mu garaaw boo amul xolo branlo boo amul moyen boo amul ay nit wala ñu am doole billaahi wallaahi boo demee police da problème ndax benn gaani mu ñëw police neexal policier yi dul fa ay dulum tooy xëpp policier bi da ñëw rek appliqué xam nga police jàppul kenn police demu kër kenn. Mhm. wa police bu ñëwee sa kër rek. Mhm. nit mooy ñëw foofu fenn. Mhm. duul fa duul mu tooy xepp. pour sànq la nu jàppale mu kontaan. ñi ko yéen a kaso ñett ñu ñooyam kaso. hôpital. kaso hôpital ak dee. ñii ñooyam. nanu xoolaat tamit jukko ñu xool nu ñuy attanee ñi nekk si jeel bi. nee nañu xoolal feebar mi ngi mais mais ñoom est-ce que ñu ngi xalaat. mais kaso yi daa fees de. waaw pourquoi ñu tëj 100 mètres. Mm-hmm. wa te campagnat loolu. Mm-hmm. te yàlla moo tax li ma leen expliqué ngeen bàyyi si xel bu baax a baax. Mm-hmm. ñi nekk si kaso yi est ce que yéen a ngi xool ak feebar bii. ñu ngi différé rek. te néeg yi dafa xat. ba bu ngeen bëggee dégg dëgg kaso yi daa fees dell. keneen li ñuy waxoon grève de la faim loolu mooy point. ndax moom am ku ko waxal. du kaas ba kenn dégg ko. lu mu ñaxtu du ko am. léegi li muy def mooy lan. mooy grève de la fin mhm. ñam bu dugg duñ ko coob. Mhm. te ku ko coob si biir jeel bi nga dem rocceeku coob gars di dinañ dal sa kaw. Mhm. ndax gor mooy jeel. te ña fa nekk xool kenn gënu leen. jeel ña fa nekk kenn gënu leen. day defar sa xel day defar nit day defar góor yàlla. nekkul da nga bon ñu xam ne nag jeel maan ak garde yi ñoo yem. te may lancé benn message ngir yàlla mooy chef de cour bi nekk 100 mètres. lii na si gars yi bàyyi xel. chef de cour bi nekk 100 mètres rëbës ngir yàlla nga may prisonnier jàmm nga prisonnier yi say rakk lañu ak say mag say papa mhm. garde pénitencier nga mhm. moo li ma wax nii moo nekk de mhm. lii moo am 100 bi bii nii may wax nii chef de cour bi ngir yàlla na nga yërëm prisonnier yi nga dan leen ne jox dénkaane la nu ñoom ay dénkaane noonu jelmaan xoolal gënul garde garde gënul jelmaan waaw nanu daw a yërmande mhm. ñu xam ni prisonnier bi ngay def noot mhm. ñii leen fa tooñ dugal leen mhm. mais gis ngeen li chaque fois nga gis koo xam ne da koy génn la kaada kii mu ngi nii xal Mouhamed benn gaa mu tudd Mouhamed maa ngi koy nuyu maa ngi koy dégg sax temps yëpp xool Zik FM quoi waaw Mouhamed maa ngi koy nuyu bu baax a baax quoi moom tëj nañ ko huit ans six mois prison huit ans am benn gaan boo xam ne xoolal benn sàcc moo ko may deux mille ñu tëkk ci cinq ans ay fait yoo xam te ni man je ne comprends pas a nga ciy déférer nit ñi quoi <laughs> ba pare bu nekkee sa mbokk dossier bi da nga koy teel a jël rocce ko suuf mhm. demal xoolal fii nga xool demal a parke mhm. maanaam xoolal ko tribunal nga xool mhm. nga xool juge yi ak dossier yi nga xool xoolal ñi am moyen ñi am lu moyen nga seen baadoole si ñooy nekk si buntu parke bi di jooy sa nga am sa la sa doom boo xam yow moom nga yaakaara mu lay dimbale man mhm. maa ngi nii man sama yaay bi muy dee maa ngi ci kaso bi mhm. ci ay yoo xam ne xamoo sa si benn gaañ bu tudd Cheikh Sar yaa xama lan gis na ma nii en na ma min ma waaw loolu du sa <laughs> ñu xam loolu puis mhm. nit mënu si nit dara nit nit doo ko lekk du dee tànk yàlla yemale ko fa dëgg la na t'en fais nit génn na si gàllem dee nit tëdd na biir néegam dee ndax xalaqale mawtu wal xayat fos dëgg la amul ay mbas ay corona ak ay takka masque ay mesure distance ak yàlla dafa ni leen ud'uunii astajib lakum ñaan leen ma may leen mais mhm. jàkk yi li ñu war xeex mooy ñu xool jàkk yi nan la ñuy jullee ndax wa maa umiru illaa li ya'budullah mhm. tey fexe nañ léegi ba julli léegi dootuñu nuyoo mhm. xam ne fexe nañu ba julli di dootuñu nuyoo amatul jàkk yi ñu keree benn benn un mètre distance mais yàlla fan la waxaloo si alxuraan ñu waxante dëgg te yàlla moo tax quoi. gis ko fenn li ñu war a kaas mooy lislaam mhm. li ñu war a kaas mooy li yàlla wax si alquran. Mhm. li ñu war a kaas mooy li xam ne ni martaba du ñu dal. Mhm. martaba mooy balan. nit ñi nag bu ñu waxee. demuñu. wa ñaam am def. demul ah. ñi mën tamit jéem def. demul. yàlla mooy wàcce ay musibam te kenn du ci yàlla su wàccee balaam. Mhm. di nga xam lépp dëgg la. dëgg la 10 000 euh, ki ñu gis ni dafa mel ni soxna si la ah. waaw moom sama soxna la moom. Mhm. animé moom. waaw ñëwagul la ñëwagul ah. 10 000 l' émission tire à sa fin mm. lan mooy doon kàddu gi nga xamante ni moom ngay tëjee ak laka ngay wax la jeunesse sénégalaise ñi nga xamante ni peut-être dinañ gis 10 000 problème kontaan dinañ gis 10 000 problème dem euh, Pikine wane la nga xamante ni normal fa seen xel daal di daal parce que problème c' xam nga nit ba ngay war a amal sa société njëriñ. Mhm. mais pas wax na nga nekk si dëkk bi ba créer say mouvement mais comme ni ko yenn rapport yi defee. Mhm. créer say mouvement. Mhm. wala chaque ajuma nga jubale centenaire. marche marche. ñu mënuñu fi nekk di marche ba deux mille vingt quatre nan dem liggéeyi. problème. te bu wetta Colobane ñu ngi Kaasaan waa mu wetta ñi fa ñu ñëw yëpp xool ko ah, ah, dëkk fa. mais marche bu amee xool bu amee taabalu baadoo la ñooy yàqu. Ah? bitigu jàmbur yi la ñuy daj yi mhm. yow da nga ne sa benn candidat bu xam ne moo dàq duul mhm. ndax moo lay jox mhm. boo lekkee moo la jox su fenee sax da nga koy nangu bu doxatee nga ni ëski <laughs> ndax moom nga yaakaar fii moo bëri ay mouvement dóorkatu matto mouvement yi gis ñëpp seen ñoom li war a kaas xeex ko mooy réalité bi ñu fexe wax nit ñi dëgg ñu wax politiciens yi dëgg ñu xool ñu ñuy dimbalee citoyen sénégalais yi ñu wax ak alkaati yi tamit. Mhm. ñu wax si fee yi nga xam ne nit ñi ñooy dem police. xata kalaame nit ñu fekk ko biir néegam. Mhm. naka la police di ñëw si kër jàmbur dugg si biir néegu jàmbur. Mhm. ndax benn gaañ mooy ñëw wax yow du du autorisation du dara. dañuy xëy dugg si kër jàmbur quoi. jaay ko doole nangu ko. wax nga mbéj ko yóbbu ko et puis nga defeere ko. yaay bind ko yaay mais nanu ragal yàlla. ah euh, da nga am wax boo am so wax bu am solo et que ni mi ngi woon sama bopp mais dafa génn maanaam mouvement yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk ñu dégg ki nga xamante ni moo di kilifa bu yaana a marre fan yi ñu koy tudd ci ay affaire euh, passeport tra euh, visa affaire yooyu noonu genre tey lan nga ci wax en tant que affaire visa yi ngay gis nii nii mhm. artistes yi mais xëy na bu kilifa rek moo feeñ mhm. ñoom da nga ko yàgg a def mhm. na t'en ok artistes yëpp danoo yàgg di jaay visa xam ñu ngi koy jaay mhm. marché ambiaay na nga koy jaay yóbbu leen kaaw mhm. ak bool bool yi mhm. yóbbu leen kaaw jeex na ñoom ñoom seen liggéey yàggoon na nga koy def waaw boo xoolee xool 2019 bi passé nii ñaata as na jàpp si affaire visa ñoom dañuy jaay visa na taxafe pas du kilifa kese de ñoom ñëpp a koy def bay si xoolal Dakar Paris bi amoon passé gars danoo jaay visa yëpp xaa xamoon ne artistes fii ñëpp mën nañu voyager mais benn artiste mooy képp visa yëpp du ko jaay ku ko neex marché ambulant benn visa ko wata 4 millions 500. wa 3 millions 500. Mhm. boo nekkee benn ngaaka na nu jàll ko 5 millions. yóbbu la nag xoolal yóbbu la ñu fexe ba liggéeyante la carte artiste nga mhm. am ko. Mhm. yóbbu la studio xoolal dóor ay photo yaa ngi dégg de. déposé ba nga benn artiste nañu jël benn artiste nañu jël benn benn. ba pare boole si cinq personnes yoo xam ne ay bool bool ay lii ay lële ay moodu moodu nu yóbbu ñoom noonu la ñuy joobee. yàgg noonu koy def. Mhm. ñoom seen alal yi ñu am du ram nga leen ko may. mais mais mais cassette amul xaalis. dëgg la waaw mais benn seede taw noo si amee ay 4 am si mhm. ay terrain. Mhm. ah waaye ñu wax na dëgg te yàlla moo tamit quoi nañu waxante dëgg <laughs> yow mënoo di sàcc nga ni man du man day sàcc mhm. mënul nekk mhm. yow kay da ma raawnu da ngay raawnu mu mu paawnal nga paawnal fin <laughs> voilà qui à cette édition on vous donne rendez-vous waaye ki nga xamante ni moo génn ci lacoste bi du kenn ku dul Sam Noble mi ngi ci diwaanu euh, marché Dior ku bëgg a jokkoo ak nga def le 78 171 56 03 78 171 56 03 nga jokkoo ak Dior euh, dix waxtaan bi jeex na. di la bëggee di bëggee chaîne bi. Mhm. di ñaan yàlla rek affaire bi yàlla na ko yàlla dooleel. Mhm, amiin li ngeen si bëgg si Sénégal yi tamit yàlla na si yàlla teg loxo bu baax a baax. amiin dooleel ko. Mhm. musal leen si franc-maçon yi. amiin musal leen tamit si jaaykatu pot bi. amiin maanaam góor jigéen yi. amiin musal leen tam si féticheurs yi. amiin rendez-vous nag à ku kaa kaa. mu ngi nga def kaa bu xaarul nga def ko. peinture <laughs> Wagwan. Wagwan.